saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekkaat fa le ministre Matar Ba may consulter ak lu làmb di wax ak ñoom ci naka la ñuy doxalee CNG bi naka la ñu fas yéenee liggéeyee kan mooy remplacer président Alioune Sarr gannaaw ba mu dalalee Mohamed Ndao Tyson ma ubbi baal bi moom le ministre Matar Ba continuer ci dalalaat yi naka noonee la def daal di dalal le secrétaire administratif Ndiamé Diop dalal le directeur technique national Khalifa Sow dalal l'ancien Sénégal ñu gën koo xam ci Pape Abdou Fall dalal le président du CRG dalal le président de l'association des amateurs de lutte authentique Amadou Mbaye dalal le président de l'écurie Rock Énergie Khadim Gadiaga dalal l'ancien président du rassemblement des amateurs de lutte Khaya dalal le promoteur de lutte Gaston Mbengue dalal le journaliste sportif Babacar Simon Faye moom le ministre Matar Ba noppeegu ndax gannaaw àllarba tey bii bu weesoo alxames la fas yéene continuer ca ña dalal conseil des ministres àllarba jëlee ba noppi ak lu lamb yépp danañ kontaan ci moom li ma dégg ci audience bi xam naa ni bu ñu ci àggee lamb ja neex journal ba xam le ne bu dee président CNG moom Matar Ba choisir na ba noppi audience yi muy amal la ko waral du leen lu dul naka la ñuy tëggee bureau ba Matar Ba consulte pour les autres membres du bureau waaye bu président ba koy jiite CNG ba moom tànn na ko ca tànn yu njëkk ya journal ba bañ xel yi dem ci Mohamed Ndao Tyson moom waral mu ne Tyson out Mohamed Ndao Tyson ña ministre ba tànn bokku ca ñoom la ñu xam le mooy fore nañu na ko jotee rek lamb yëg ko ba ñu waxee ci waxi remplacement nag ci la journal ba xëy ne clap de fin après 26 ans à la gannaaw ñaar fukki at ak juróom benn ba mu def ci bopp CNG moom président Alioune Sarr léegi ñu remplacé ko diir bi mu nekkee ci bopp CNG bi ñetti président ñëw nañ fekk fukki ministre ak ñett autorité yooyu yëpp jaar nañ ci kawam ba jàll moom mu des fi bu dee ca président de la république yi mu ngi doore woon ci président Abdou Diouf Ablaye Wade fekk lamb ji moom Youssoufa Niang président écurie Dóor waar génnal na ko adversaire président mooy adversaire u mu ne xanaa Yékini Junior ñu ne ko looy wax nii mu insisté na le combat Yékini Junior s'impose moom la mu xam le mooy Yékini Junior ñàkk combat bi yépp ay adversaire dañoo xam ne moom fawut faluwut ay adversaire ñi ko lamb booleel xam nañ ne buñ ko jëlee mu metti ci ñoom waaye Gris mi fi nar nekk nar a lamb Waalo Arona Sall la mu xam le mooy s'il n'est pas capable de battre Eumeu Sène qu'il rend son bu fekkee mënta daan Eumeu mu bàyyi làmb bu dee mënta indil Eumeu ay problème mu tekki ngémbam loolee nag pression lay nirool waaye ñaax la ci Lac de Guiers 2 moom Arona Sall am na gëm-gëm ci Lac de na bu jàppee Eumeu Sène indil ko lu metti rax ca dolli ne Lac de pare na bu dee tey tey pare na bu dee suba suba pare na lépp li mu waroon la liggéey ci bile combat liggéey na ko ñu jàpp a fës ci yéenekaay